asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa yi ñu ngi leen di nuyu e, ñu jot benn vidéo boo xam ne benn mbokk e, mooy wax ci vidéo bi di saxal li nga xam ne waa tasawuf dañ koy jéem a saxal te di ko jéema layal ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi ci àdduna bi di dund mu ngi wër ci màggal yi ak ci gàmmo yi ak ci ziyaara yi di wër ci seeni tànta di teew ci wasifa yi di teew ci seen jotaay yi yëpp te loolu doon loo xam ne lu dàqwante ak alquran ak sunna la ñu bëgg a caaxaanam yi nga xam ne wax na ko ci vidéo bi nii ndax moom kat li feeñ mooy daa jàkkaarloog aw nit rek euh, ñooña di ko tàccul di ko reyal mu leen di lëntalal ay wax yoo xam ne <clears throat> amul benn arjuma ci alquran mais amul benn arjumaatam ci sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu déglu ko euh, ci waxam ju njëkk ji ñu tontu loolu doo a jàll. man da nga ma gis yàq ma gis yàq nag ñu ñëw ci gaa yi ko wedd ñoom lu ñu wax yan lay lañ am seen lay am bi ci jëkk mooy dañoo wax ne innal mayita laa yahudu ila al xayaati dunyawiya ñoom nee nañ ku faatu dootul dellu si ci àdduna loolay seen première lay ku faatu dootul dellu si ci àdduna mooy seen première lay kon nag yonent bi bu ngeen ko gisee kon dellu si na ci àdduna bi ñoom loolay seen wu lay mais lay woowu lay woowu dàqu na lay woowu lay woowu boo settantalee tuuti rek daa nekk moog lëndu jargoñ ñooyam te wa inna aw bu buyuti la baytul ankabuuti law kaanu yaalamuun allahu akbar kon mbokk yi dégg ngeen lim njëkk a wax nee na ñi nga xam ne dañuy weddi ne yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi dund dund gam doon dund bu njëkk di teew ci màggal yeeg gàmmo yeeg ziyaara yi di teewee wasifa yi euh, di teewee ngénte yeeg céet yeeg yëpp comme ni nga xamee ne waa tasawuf noonu lañ koy waxe nee na ñoom seenu laywu njak njëkk mooy ne almayitu laa yarjiu ila dunia mooy ku faatu du del ci ci àdduna mu ne lay woowu nag lay wu doyadi la woo xam ne Euh, néegu njar goñ moo ko gën a dëgër allahu akbar waaw bu doon ne ay xale lañ de dañ koy wax li xale yi di wax ni ko waaw yow koo yëpp yow ndax ñi koy weddi nga yëpp wala yàlla kub yonentam nga yëpp wala alquran ak sunna nga yëpp xam nga lu tax ma wax lool alquran moo saxal ne ku faatu du del ci waat ci àdduna لول القرآن كو سخل القرآن نينا حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون نينا بودمي بكين سنيوم دي ديكلكو دنان سن بروم ديلوما لعلي أعمل صالحا بروم بي أمانة بوما ديلو دينا دف لباخ يالا نكالا إنها كلمة هو قائلها نينا لي وخرج لجو قمني moom moo koy wax noonu rek waaye wa min waraihim barzaqun ila yawmi yubaasuun nee na barzaq mu ngi ci seen gannaaw fa la ñuy nekk ba keroog ñu leen di dekkal kon kat alquran a wax ne barzaq ku fa dem dootoo del si waaye sax mu tuddee ko barzaq nga xam ne li muy teg mooy benn barrage boo xam ne dafa dox diggante waa adduna ak diggante waa àllaaxira kenn du ko tuddee mukk di ko kenn du ko tuddee àdduna mukk waaye euh, duñu ko tuddee ne foofa aljana la wala safara la waaye barzaq la ko borom bi tabaraka wa taala tuddee kon loolu alquran la mais boo ñëwee ci sunna yonent bi alayhi salaatu salaam si xadisu euh, jabir ibnu abdillahi radiallahu anhu nga xam ne alimam at-tirmidi da ko génnee ci numéro bi nga xam ne mooy 3010 Ibnu Maaja génne ko ci 195 hadith bu gudd la waaye li ma ci soxla laay indi yonente bi alayhi salaatu bi Jaabir ibnu Abdullah baayam faatoo mushriku ne dañ koo rey ba pare daggete ko def ko melokaan yoo xam ne yu ñaaw la Jaabir ibnu Abdullahi radiyallahu am tiis lool am naxar lool bi mu taseeg yonente bi alayhi salaatu wassalaam bi ne ko yow de Jaabir daa mel danga da ngaa am tiis waaye xanaa xamoo suñ borom lu mu teroo sa baay mu ne ko dérét mu ne ko da ko dekkal ba noppi daa di wax ak moom directement daa di wax ak moom directement nee bi mu waxee moom ba noppi ne ko tamanna alayya ne ko mibatal wax ma loo bëgg wax ma loo bëgg rek ma jox la ko mu ne ko yaa rabbi tuxyiini fa uqtal fiika thaniyatan yow borom damaa bëgg nga dekkal ma ñu rayaat ma ci yow ñu rayaat ma ngir yow nga dekkal ma ma dellu àdduna jihaad ñu rayaat ma ngir yow fa qaala rabbu subhaana innahu sabaqa minni annahum ilayha la yarji'un yàlla ne ko ah daa jiitu ci sumay dogal de mooy ne àdduna ku fa faatoo doo fa delluwaat loolu dafa jiitoo ci suma dogal ku faatoo ci àdduna doo delluwaat àdduna loolu bokk na ci sumay dogal mu daal di jàng euh, aaya bi nga xam ne moom la borom bi tabaraka wax ne ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون دنگ مدادي جانغ آية بوب mu ne ko kon yaa rab fa ballig an ni kon borom bi damaa bëgg nga jotalal ma suma xibaar nga jotalal ma ko waa aduna damaa bëgg suma xibaar nga jotalal ma ko waa aduna yàlla daal di wàcce aaya boobu daal di jottali xibaar bi mu daal di yegg ci julit ñi kon alquran a ngi noonu saxal ne almayitu laa yarjiu ila dunia ku faatu du dellu àdduna sunna yoonante bi alayhi salaatu saxal ko waaye euh, nguur si nga xam ne ku ko tàccu la bëgg xëy na ak lu mu dugal ci ay poosam muy weddi alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, boo ñëwee ci ñaareel bi euh, ci lay wi nga xam ne moom lay jéem a layee ci xadis boobu ñu ñu déglu ko sax ci xadis bi ak li nga xam ne moom la ci wax ci xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne marartu ala muusa laylata usriya bi inda alkathib al ahmar wa huwa qaimun yusalli fi qabrihi ci xadis xam nga am na yoo xam ne boo koy boo koy leeral boo indee xadis boo xam ne kii danaan wér na kii na wiru xadis boo xam ne wuute nañ ci am yambar mën na cee jafandu mais da ngay indi xadis boo xam ne kenn mënu ci dara lii ñoom ñépp ci d'accord yonent bi nee na guddi giñ ma rañaanale romb naa ca tund wu xonq wa yonent yàlla muusaa muy julli ca bàmmeelam ba kon yonent yàlla Muusa daa dellu si xanaa kon ci àdduna bi julleem googu li muy tekk mooy daa dellu si waat ci dundu àdduna gi kon waaw léegi yonent bi bu fekkee kenn mënu koo gis ndax moom buñ ko gisee day mel ne daa dellu si waat tasaw lay mooy ku xas ba faatu dootoo ñëw ci dunduk àdduna bi yonente bi na moom gis na yonente yàlla muusa te yonente yàlla Moussa faatu woon na bu yàgg bañ roboon ko ñaata at digganteem ak yonente bi yonente bi romb ko muy julli te fii ci àdduna la ko rombe waa looy wax loolu da nga naan kon yonente bi yow gisoo Moussa gisoo ndax Moussa faatu na ñoom mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu ngeen ko déggee daa romb Moussa mu ngi julli te fii ci àdduna fa ko gisee mbokk mi mbokk mu war a ragal yàlla la xadis boobu mu tudd ñun xàccoowu ñoog moom xadis bi wér na wala wérut waaye xadis bi boroom xam-xam yaa ngi ko dugal ci mujizaatu yonent bi sallallahu sallam ak kiimaanam yi ak jagle yi nga xam ne moom dong la ko yàlla jox moom dong la ko yàlla jox ci ay xasaayisam lañ ko dugal ndax mu ngi xew ci al isra wal miraaj muy yéeg gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yéegoon na ko dem ci borom bi tabaraka wa taala gannaaw bu mu jógee makka daal di dem baytil maqdis fa lañ ko dugal te nag duwut sax ne Moussa rek la gis gis na Isa alayhi salaam gis na Malik mi nga xam ne mooy garde safara gis na yonent yi yëpp bal jullee na ak yonent yi lu teewoon nga wax loolu lu teewoon nga wax loolu wax yooyu yëpp moo gën a yey waaye ndigam lii jagle la goo xam ne yàllaa ko jagleel yonente bi alayhi salaatu wassalaam mooy mën a gis ni ci biit xabrum muy julli ca ca biit xabrum la ko gisee comme xadis bi raaytu marartu bi Muusa alayhi salaam qaa'iman yusalli fi qabrihi gis naa yonent yàlla Muusa mu taxaw ca biit xabrum di julli loolu ku ñu waxut ne ak jagle la gu yàlla jagleel yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sax baa di bat boo jàngut dara war ngaa xam ne loolu ak jagoo la ndax bu dul loolu kon kay ñi ngeen di tuddee ay wali ak yooyu ñu ñu yore ay bët di gis si biir xabru yi ña xam ne ñoom ñoo faatu ñuy ñuy julli ñee di def nii ñee di def na te ku ko ci woote woo rek baatil ngay woote woo maanaam lu wérut lu saxut ci alquran ak sunna loola ngay woote woo su boobaa kon gis nga ñuy fooyee ki nga xam ne moom la ñuy fooyee diina ak yab gi ñu yab yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba di jël seen bopp di ko xiyaase ak yonent bi sallallahu alayhi wa jël seen bopp di ko nattaleeg yonent bi si ay mbir yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moom moo ko ko jagleel loolu moo tax sax suyuti mi nga xam ne ab mutasawif la comme ñam téeréem bi mu bind tuddee ko al qasaisul kubra muy jagle yu mag yi nga xam ne yàlla moo ko jagleel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ci bunt boo xam ne lii lay wane mu ne baabun fi ma talaa alayhi min ahwaalil barzaqi nee na bunt bi dama ciy leeral may gi nga xam ne yàlla may na ko yonentu mu mën a yundu barzaq di xam la fay xew wal jannati wan naar kadalika mu mën a xam mu mën a gis aljanna mun a gis safara lii yëpp ci xasaa isu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ci yi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala moo ko jagleel te loolu duhut sax ci mbiri Moussa rek waaye yonent bi ci xadisu ibnu abbas ci buxaari muslim romb na ab bàmmeel ñaari bàmmeel mu ne innahuma la yuazabaan mu ne ñaari bàmmeel yi ñu ngi leen di mbugal gannaaw ga mu daal di jël ak cëggug tàndarma xar ko ñaari xar xabru bi mu samp fa benn xabru bale mu sant fa samp fa benn bi ñu ko laajee lu tax mu ne amaana yàlla woyofal mbugal ci ñoom li feeg tàndarma yi di wow cëggu tàndarma yi di wow kon yonent bi daa bokk ci ay jagleem borom bi tabaaraka taala jagleel ko muy xam li xew ci xabru yi waaye mu jagleel ko muy gis aljanna léeg-léeg léeg-léeg mu gis safara léeg-léeg mu gis Malik mi nga xam ne moo mooy mooy garde safara ak yeneen mbir yoo xam ne yu yéeme la yàlla da koo jagleel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye waa tasawuf ñoom dañuy xiyaase seen bopp di nattale seen bopp ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu moo tax jagle yu mel nii. Aboubacar woote wut ko Omar woote wut ko Ousmane woote wut ko Ali ibn Abi Talib woote wut ko kenn ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam woote woowut jagle yu mel nii lu dul waa tasawuf yi nga xam ne ñeñ sa dégg ci ñoom ñu di ko wootee ñu sa bari seeni xel sax dafa naax ñeneen ñu si bari amuñu xel dañuy dañ dañuy toog daanu ay leer di wax ay wax yoo xam ne waxi caaxaan rek lay doon nga xam ne sharia sax du compter façon wax yooyu nit nga xamee ne ki naan sàngara day wax yenn wax yi nga xam ne wax yu doyadi la te duñ ko compter kadalika waa tasawuf ñu si bari dañuy daanu ay leer di wax ay wax yoo xam ne wax yu compter wut la wax yu teg wut fenn la am na si yenn wax yoo xam ne sax dafay ñaaw lool ñu di ko nettali dafay ñaaw lool ñu di ko nettali sax si ñoom waaye lii kon dañuy xam ne ak jagle la goo xam ne si jagle yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la bokk comme ni nga xamee ne noonu la ko Suyuti waxee euh, ñetteel bi ñetteel bi mooy euh, ku ñu wax al imam al bayhaqi loolu day firndeel jagleel gi nga xam ne moom lañ wax al imam al bayhaqi moom dafa bind benn téere boo xam ne mu ko tuddee xayaatul anbiyaa'i fi quburihim xayaatul anbiyaa'i fi quburihim mooy ne anbiyaa'u yi ñoom dañuy dund ci seeni bàmmeel loolu ci seen jagleel la bokk moo xam yonent bi sallallahu alayhi la moo xam yonent yàlla Muusa la moo xam booleem yonent boo xam ne rob nañ ko yonent boobu day dund ca biir bàmmeelam ba donte ne dund boobu nag wutee naag dund biñ xam ni ndax ñu ngay dund te dundatuñoo ay soxna ñu ngay dund nekkatuñ di di dund di lekk di naan comme façon dund gi nga xam ne moom lañ xamoon nii ci àdduna dundatuñ façon dund gu mel noonu waaye nag bokk na ci seen jagle yi nga xam ne ñoom ñoo am jagle googa mooy ne ñoom dañuy dund ci seen bàmmeel yi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadit bu wér ne al anbiyaau ahyaun yusalluuna fi yi dañuy dund te dañuy nekk ci seen biir bàmmeel ba noppi difa fa julli kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu gisee yonent yàlla Moussa mu nekk ci bàmmeelam di julli foofa ca biir bàmmeel ba loolu ak jagle la goo xam ne yàlla yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la ko jagleel moom la jagleel mu mën mu mën a am lool waaye wut ko Aboubacar jagleelu ko Omar jagleelu ko Ousmane jagleelu ko Ali ibn Abi Talib jagleelut ko baqiyatu naas loolu mbir la moo xam ne spécial la pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ki nga xamee ne dundu ci bàmmeel nekk ci sa biir bàmmeel dafa dundu wala sax difa fa julli yooyu ay jagle la yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala anbiya u yi ñoom la ko jagleel kon incha allah su ko defee daani daañ topp ak nguur si yeneen wax yi nga xam ne wax na ko daañ ko topp ak moom incha allah ndànk-ndànk ndax bëgguñu audio yi gudd ba ëpp loolu moo tax euh, wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu